looy wax ci rumeur yi nga xamante ni euh, gars yi ñu ngi koy wax euh, ci euh, Bouba Ndour parce que temps yi passé mu gisoon ni Lamine Samba génn. Mm-hmm. wax ni moom émission wam dañoo jël émission teg ko ci kaw émission wam. Mm-hmm. ba tax moom moo tax mu émission boobu doxatul. Mm-hmm. dañuy xaar moom mu démissionné mais du ko def te sax fenn mu ngi jot xaalisam. Ah, loolu léegi nag ñu dégg ay rumeur yoo xamante ne nee nañ TFM dafa am ñoo xamante ni. <laughs> la ñuy gën a favoriser ka ñeneen ñi yow nan loolu noonu. man de wax dëgg yàlla gisuma loolu. gisuma man gisuma loolu. képp ku nekk place bu ñu la teg rek loolu nga mérité. te man waxal kenn gis naa yàlla te gisuma ko. Bouba Ndour ku dëggu. li muy wan sa li Sénégal yi ak la Bouba du benn. parce que man ñu rek laa du dëgg. Bouba ku am fula la dëggu ku amul benn parparloo xam li muy def. Mhm. man dugg naa biroom benn yoon. Mhm. wax ko sama problème. ma déggoo li ma la wax. moo ma si laa ko tuddee bi buuba bien fait et vite fait. mu mm. régleel ma sama problème comme man li ñuy wax ak ñoom xam nga ku nekk ak li nga sëkk ak moom. man li ma sëkk ak moom rek laay wax. su ma comme yéen genre yi bu daan ñëw dama koy woo téléphone ni ko buubakat si sàngam moo ma soxla mais daf ma ciy conseil comme sama frère wax ma ci sax loo xam ne sama frère du ma ko wax. comme buuba mënu ma kaa wax lenn lu dul ku baax la. ku dëggu la li sénégalais yi nekul, nekkul li muy won sénégalais ak mom numu mel daf ñuy nax té damay bañ ñu ci bari am ngàcce bu ëllëgee nit ku baax ku sympa ku simple waxuma ko pour dara parce man sama talent si man la nek gëwuma jox loxo kenn pour mu lema, ma mhm. ci sama talent mais deug fu ma fekk fa la may buuba nit ku baax la njaga nit ku yaru la ku respecté nit ak luñu leen mëna waxal mhm. respecté nañ ñu kenn sonaluñ ci suñu liggéey suñu liggéey man maa ngi nii bëkki dem rek convoqué nañ ma réunion dew ma parce que damaa grippé. Hmm. te du du ma ci dara duma ma ca fekk. comme ay nit yu ñu war a ñaanal lañu. Hmm. xëy na ñuy tekk ji mbir bu amee nee nañ ndox la ñu gën a bëgg ci tey mais ci nit la war a gën a dale parce que bu mbir amee ki def tekk. Hmm. kooku moo ëpp sens kiy wër di ratatati. parce que xëy na. dañuy defaraat programme yi wala ñu am leneen lu ñu bëggal suñu fans yi ak sénégalais yi. moo tax ñu def recul ñu ne teg comme bu loolu amee ñun ñëpp rek nan na tekk rek di leen seet. kàddu yi rafet na parce que nag gën a jege gën a yey. ah oui. yaa ko wax parce que tamit li nga li nga xam ci moom rek nga témoin mais aussi dafa dafa jaadu sénégalais yi nga xamante ni ñoom ñooy ñoom ñooy yaakaar ak li nga xamante ni ñi nga xam ne ñoom ñoo fa doon liggéeyee ñoom ñoo ko doon wax ci ci ñoom hmm. yow gisoo loolu ci ñoom amul du dëgg amul parce que mais nag dañoo gis aussi ñi nga xamante ni comme tey jii su ma jëlee exemple Pape yàgg na fa hmm. kenn doot ko présenté moom Sénégal dëgg la ku baax Amina Poté la même chose mais Abba mi nga xamante ne aussi moom moom mujjee génn gis nañ ko hmm. Euh, moom mu ngi wëyal ay émission wam bu baax a baax mën nañ mm-hmm. leen di lundi au vendredi wala di lundi au samedi sax moom mu ngi mu ngi émission mm-hmm. mais pour pourquoi ñee nga xamante ni Abba fa la leen fekk ñooñu ñu ñu frigo leen comme ni ñu koy waxee moom muy continuer loolu moo nekk loo xamante ni nit ñi ñu ko comprendre en fait te dërëm di nga ci ñëw aussi tamit nga expliqué ñu. <laughs> déggoo li ma la wax xam nga Abba tegu fa boppam. Abba tegu fa boppam mais maanaam bi ñuy wax. ci nit ñi ñoo gis loolu rek. waaye favorisation amu ci ku nekk li nga la wax rek ku nekk place bi nga war a moom rek ngay moom te ku nekk li yàlla bind ci sa jëw bi yow Binta Rasoul mhm. ah loolu force danga koy lekk te tey jii mun mun nañ bokk mbal ceeb bool ceeb bi mhm. te yàlla tudd ni yow yaa ma ci ëpp lay dànk pourtant yaa ngi dànk maa ngi dànk waaye ku nekk sa li la yàlla sa cër rek ngay lekk ku lekk cëru jàmbur danga koy teg mhm. yàlla guddal fanam wéral baatam bàyyi ko ci li mu nekk ndax fekk yaa yokku xar mi karaw wàññiwul karaw yi te loolu la ñuy ñaan yàlla tey jii lim doon liñ doon def ñun ñam fa fekkoon su fekkoon da cee wàññi dara ah mais moom dafa yokk comme nañ ko ñaanal yàlla rek gis nga programme bi leneen lu la ci waay wax du dem ca buubanduur nduur mbaa ñu yor programme mhm. ñu wax la lu ci leer xamuñu ci dara ñoom ngi mën a yem mais nañu tey rek xëy na ñoom ñoom ñooñu suñu directeur programme ñu ñu dencee surprise yoo xam ne wala ñu ñuy waajal surprise yoo xam ne bés bu nee rang ci sénégalais lépp lu waaye meroon rek pour sa sa sa kii bu ñu frigo ah di nga te loolu man gëm naa ko te loolu dina nekk parce que ñun suñu tele télé surprise la. d'accord télé boo xamante ne lu dañuy waaj lu neex sénégalais yi rek ñu ne leen ko rang bu leen mer nañu xaar gars yëpp ay ñëwaat ñu def. ba Sénégal mais am nañu si frustré wu am nañu non non loolu xam nga lu mu doon. tey rek la ñu war a def sénégalais seen problème yëpp ñàkk a la. yi nga bu ñu daloo kenn du ñu gën mais suñu mbir yëpp dañu yàkkamti da dégg teel rek nga ne damm na dammagul ndànk parce que xëy na tey suñu kilifa yooyu ñu toogloo. ci ñu ñu toogloo man tooguma te maa ngi liggéey man chaque mardi. yaa ngi sa salaire. bu baax heure bu ne mosuñu ñoo amal cent franc sonaluñ ñu ci dara comme ñun waruñu leen sonal ci dara lii de maa ko wax dërëm te lu ma dund la. nekkul wax ko pour neexal kenn parce que man du ma xeet boobu. li ma gis dund koog ñoom ci yiw ak yar ak dal loolu rek laa leen si mën a seddeel leneen li ci des. programme ba docteur programme ba xëy na dafa am yeneen surprise yu mu dencal sénégalais yi. moo tax mu mu toogloo leen pour bu surprise yooyu ñëwee mën a neex sénégalais yëpp du noonu loolu da laa xalaat te ku nekk sa xalaat rek nga wax. dëgg la am na